waaw gars dama ñëw waxaat à travers la chaîne Dakar Showbiz def jox sama position ci coow li li juddu entre Sidi Diop ak euh, Wali Balago Euh, di fàttali ni ki euh, euh, temps yële Bouba Ndour dafa defoon émission boobu bu ñu xam ne ci mu ngi ko woowee xaw ma dans la voiture de Youssou euh, ci biir émission bi wali ne ko am na benn son fàtte tour tur bi tour son bi euh, benn son yu si dur boo xam ne may gaañ ki vraiment dama bëggoon euh, bëgg naa ko reprendre quoi dama doon ñaan autorisation xaar autorisation bu ba ne ko jarul ngay ñaan autorisation mun ko utiliser ah def naa dëmb Wally génn na son bi def ko reprise bi je pense que loolu Youssou war na ci kontaan euh, quel que soit gars li ñuy wax digganteem moom ak wali wali je pense que euh, boy bu yaru la euh, reprendre son papa, mais dafa ñëw reprendre son Youssou Ndour wane ni ki lépp lu gars yi di wax daal Youssou papam la ensuite Youssou icône nationale la donc boy mel ni ki ñoom wali war nañu mën a reprendre son mais à ma grande surprise tay ma gis Sidy Diop reprendre même son que bu def je pense que lolu mom du du ce n'est plus concurrence mais ay yëf quoi je pense que Sidy warna na li mu xam ni kii tey fu ñu ci mbalax mi fi Sénégal sen sen génération ba génération wali wali mo loxo donc mon lu mu war def fa liggéey euh, et je pense que def def même son

lu muy def du concurrence yëf naa fex la parce que je pense que le le 31 Youssou Ndour bu mu nee euh, TFM Wally nekkoon 2S euh, euh, dafa jékki-jékki rek ñëw fekk Youssou Ndour TFM di gë di gën a envenimer situation bi je pense moom mu ngi ci yoonam Wally mu ngi ci yoonam na ku nekk na liggéey ñu bàyyi yëf yëf dof yi ñuy def moom dafa war a des na lu bëri waali lu mu am ci expérience waali lu mu am ci mbooloo waali lu mu tekki fii ci ci Sénégal moom si di tëkkaatu ko ne eggagul foofu donc liggéey bi des na lenn la war a wone dafa war a wone liggéeyam lu mu man lu ñu wa gars yi ñi ñu war a mën a juger pour wone ni ki moom euh, so toll na ak waal yi exemple bi rek mooy 31 passé moom 2S la newoon pendant que waal yi mu ngi à à à plus de 5000 personnes ñu koy suivre et euh, qui YouTube plus de de de personnes qui suivent YouTube moi autour de 200 et quelques donc vraiment ak c'est pas la même chose et que Lolo c'est important parce que en termes de de d'indicateurs euh, euh, loolu je solo am faramalen yor matosom yor orchestre donc si yi yooyu yëpp amagu amagu amagu ko day wéeru ci ci ci label mooy Subatel donc je pense que waa Subatel dañu war a ne euh, euh, Sidi Diop na liggéey liggéey moo am solo du caaga ne toppandoor waali lu mu def mu def ko c'est pas ça la solution parce que moom bu defee même chose que waali waali popularité bu mu am gëdd bu mu am ci dëkk bi nu mu populaire melomaani mbalaxmaani ni ñu ko bëggee euh, euh, waal bu waali mooy dem mu bosam du dem kenn du ko déglu sax je pense que mu def erreur la erreur bu bu bu rëy la bu dee buzz lay ut vraiment yàq na lépp yàq na lépp man j'avais beaucoup de respect pour moom dama doon déglu lu muy def mais bii moom lu mu def yëf cuuni la yëf cuuni la du liggéey euh, lu mu war a wone ma waali mooy par exemple loolu mun nañu ko accepter parce que ci ci ci ci musique bi la ci showbiz bi la bokk par exemple wali bu tëggee euh, grand théâtre moom na wut a tëgg euh, euh, peut-être arena arena fële Diamniadio wane ni ki moo gën a am nit je pense loolu moo gën a am solo loolu moo mooy fay loolu mooy moo koy jox xaalis mais du caagee ne di reprendre même son mi nga xam ne Wally reprendre na ko